fii ba fekk mën naa ne coupe bi nga xam ne namm nañ ko te yàlla suñu borom defal ñu ko ñu ngi koy ñaan ñun ñëpp aca mu bàyyi leen te ñoom bokk askan bi waaw aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk internet yëpp di nuyu waa Sénégal 221 people di nuyu waa bitim réew ak waa biir réew mi yëpp di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ak taw tawféex ñaan yàlla yàlla bokkuñu ko defal ñun ñëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di ñaanal euh, sunu lion yi nga xamante ni macha allah dem nañ fubali. Mhm. waaye yàlla nañ indi ndam. amiin képp koo xam ne gisoo lu du ndamit na nga ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. ndax nag soxla nañ ko trop ndax yàgg nañoo dem ci kaan waaye saa bu ñu ñëwee dañuy ñëw ak gàcce. Mhm. kon nag bi yoon yàlla nañu yàlla defal ndam ñun ñëpp ci barke Baye Niass jërëjëf jërëjëf euh, yaa Seyda Aram Diouf ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seeni yooyu set yooyu tànd ak dal ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax aja fas yéene naa ñu waxtaan ci ni ma ko saa su nekk ñaari pàcc laa koy xaaj lii dina jëm ci ñaan bi nga xam ne yaa ngi ci yëngatu ba ñu bëri rafetlu ko waaye dinaa dellusiwaat ci pàcc bi nga xam ne yaa ngi ci def lii di tawféex kenn weranteetu ko xew jamono ni ma ko waxee saa su nekk suma intro dina ci yaatal mu di kan bi aja te daam foo xam ne foofu laa namoon ñu tàmbalee mu di mbiram seet su ma nee seet nag euh, façon seet dafa bëri te yaatu waaye damay ñëw ci ni ngay seetee ak ci lan nga ëpp loo xam ne moom ngay seete nit ñi gën na ne lii moom bëgg naa nga seetal ma ci seet dafa bëri. waaw seet nag li may wax à chaque fois ci sama yi nga xam ne maa ngi koy def moo di seet pettaaw moo njëkk ci man. nee la depuis ma am 9 ans fa ma doon jàngee laa ko. Mhm. foree comme ni ma ko waxee si yeneen émission yi boo ko fa tapee di ko fa fekk. Mhm. mooy seet pettaaw moo njëkk ci man. waaye à part ça pertaaw nag gëstu naa yeneen seet ndax la saraar dafa yaatu. Ah. boo ci xasee ba sóobu ne mooy sa métier. waaw mhm. nga dem jàngi ko. lu leer yóbbu na ma Mauritanie ma jàngi ji ci wàllu la ah. yóbbu na ma Gambie. Mhm. kon dox naa tuuti bëriwul nag. Mhm. am na lu ma lu ma dox tuuti ci la saraar. wante ci seet moom. Ah. sama jëkkër moo ma jàngal ramlu seet si ndox maa ngi ko jàngee ci sama benn mag. sunu famille bi nag amul kuy seet pettaaw. amul ci bu góor amul ci bu jigéen. yàlla nag jagle la ci man la ko jaarale. macha allah. Euh, kon nag maa ngi ñaan yàlla seet boobu may seet. Hmm. à chaque fois yàlla nañu ci yàlla defal mhm. na solo jërëjëf euh, yaa Seyda Arame Diouf ci seet bi nga xam ne moom lañ tàmbalee ni ma ko waxee saa su nekk seet nag suñu borom am na loo xam ne dénk na ko ci donte seet ci ndox waaye li di pettaaw moom na loo xam ne da koo téye nii ci loxoom képp ku bëgg seet bu wér rek numéro bi mu ngi noonu af ci suufu barre bi soo ko wooye dina jëflanteeg yow ba nga gis ci lu sedd sa xol aja dama ñëw ci xeeti garab yi su ma nee garab yi nag li nga feerale <coughs> mën naa ne sa table bi moom yanji na li nga teg ni expo posé ko bëri na am na solo niñ ko waxee saa su nekk dinaa ñëw tey ñu waxtaan ci lii di néew kàttan di ngóora waaye dinañ waxtaan ci lii di euh, ndoxum cité dinañ waxtaan ci hémorroïde donte feebar yi ñu ñëw ci waaw xam nga seet bi tamit dañ ko tënk rek seet à distance seet bi à distance parce que seet dañuy recevoir ci kër gi macha allah 24 heures sur 24. wante dañuy seet tamit à distance. Mm-hmm. parce que client bitim réew yi tamit fépp lañ lay wooyee mm-hmm. la la nit di wooyee. ba États-Unis mm-hmm. ci réew Afrique yeeg fépp lu nit di wooyee. Mhm. indicatif bi la wooyee da nga xam ne indicatif bi indicatif nangam la. Mhm. parce que miin nga leen. wante tamit gannaaw loolu nag ñu ñëw ci garab. garab nag suñ ko waxee feebar a tax. Mhm. wala gàllankoor. mu ko ndax damay wax ne sénégalais feeg amul jafe-jafe moom du jóg tàmmul ko. su dundee xat-xat fanaanee ko bër seet moo woo sëriñ buñ toogee nag inkaar sëriñ sépp waaye ku si jaaxle ci sëriñ si nga jëm. Ah. sëriñ si nag yàlla nañ dajee koo xam ne day faj seen aajo. boo ñëwee nag moo jur ndoxu siti ndoxu siti nag moom mooy bàyyi mboolem feebar yi ndax bu feeb fekkee ne feebar bi garab la moom mooy reen moom mooy jur yeneen feebar yëpp sooy faju hémorroïde ta fa fajoo ndoxu siti soo paree di koy amaat mm-hmm. kon da ngay jël ñaari traitement ndoxu siti ak hémorroïde parce que bu dee góor la moo koy indil tële mm-hmm. da ngay gis góor boo xam ne naa la damay sëy du ma yëg dara ci sama jigéen mm-hmm. wala damay tëdd rek jóg bëri na loolu moo koy indi kon sooy faju da ngay faju hémorroïde garabu hémorroïde gi nag day dindiwaale seere day dindiwaale ballonnement parce que dañ ko mélangé ak yeneen garab mhm. proportion la mhm. su fekkee da nga ñëw ci garabu ngóore it garabu ngóore am na fi kaasu attaaya nga koy jël dix-huit heures ci ngoon mhm. luy wàccee ngay ut waaye dootoo utati luy yokk am naa ci beneen produit boo xam ne yàgg naa ko wane ci yeneen émission yi kuddu lem nga koy jël boole ko ak kuddu garab bi am naa ci beneen boo xam ne nag moo gën a efficace dosage bi dafa nga def ci lem boo ko amee soit nga boole ko café wala nga boole ko ak meew mhm. nga naan ko incha allahu taala soo ko jëlee bu soobee yàlla di nga yëg ne jël nga garab moo ngi nii kon boobu leer moom benn kudd rek laa la ci jox mooy traitement bi kese ñu jàll ci mm. beneen mhm. waaw ñu jàll ci cuuraay mhm. ku ne cuuraay nag na saytaane wala nga ne rab koo xam ne dangaa njaboot bu 18 heures jotee ci ngoon war ngaa taal garabu saytaane bu seytaane nag dafay dàq rab dafay dàq seytaane seytaane nag suñ ko waxee mooy bët ak làmmiñ sénégalais nag mooy yabaate na ko dëmm mm-hmm. dëmm nag alxuraan dàmm la wax dàmm mooy naankatu deret mm-hmm. mooy koo xam ne bëtam dafa aay làmmiñam dafa aay lu mu tudd mu yàqu mm-hmm. kooku mooy dàmm dàmm nag mooy naankatu deret sénégalais nag moom ku gis nga ñàkk bu ne la yow dëmm <laughs> <laughs> waaw uh-huh. ah, am na beneen boo xam ne it mooy reenu manta maare am na leneen luñ koy boole. moo ah, xam ne da ngaa meret. moo mhm. xam ne dafa yéeg. déglu bu baax. Mhm. wala meret moo xam ne daf lay sonal à chaque fois yaa ngi indisposé. Mhm. muy dam di dagg. Ah. reenu manta maare bi si lañ koy def li lay fajee. boo xam ne da ngay xëpp deret. te du rab nag laa wax. Ah. reenu mante maare dañ koy fajee bu fekkee mhm. nag dafa nekk rab mhm. beneen méthode la ñuy jaar tey dañuy bind di la jox ngay naan di sangu nga koy booleeg sunguf ak reen mhm. ñaar yooyu fajee beneen bi ci des nag bii sangat la mooy kaaraange ndax kuy dox ci Sénégal moom war nga am kaaraange soo ko amul rek wóorut soo ko amul moom ci biti ngay génn sab noonu lay fa kasal nga dee wala nga génn ñu tibb sa tànk lu leer nga wax sa tànk boo doxal tànk neen laa wax dox ñu tibb sa tànk ku la yóbbu ci sëriñ bu liggéeyee léegi nga dégg na def na soq wala deen accident yu bëri ci dëkk bi nag waxuma ne garab yi la. Mhm. waaye da ngay gis ko am kaaraange nga dem tibbu ab tànkam. Mhm. nga génne oto fiir la wala nga dugg ci oto mu këpp. bii nag xalu safara lay àndal. Mhm. bu dee jigéen la benn xal la bu dee góor la ñaari xal la. bu dee jigéen la ñetti yoon la koy somp. bu dee góor la ñeenti yoon la koy somp. garab bii moom. amul dara loo koy boole lu du gara bi rek ngay somp di def ko ci xal foo dem am nga kaaraange bët du la dal mhm. làmmañ du la dal liggéey du la jàpp macha allah waaw beneen bii nag ubbeekaay la mhm. koo xam ne da ngay falu di folli ndax yàgg naa leen ko woon wax naa leen ne ne ci fofton laa koy liggéey mhm. waaw ku koy uti nag dafa am jour boo koy wut ci géttu fofton ngay dugg géttu fofton nag mooy foo xam ne fofton ngay def sax ba mu bëri fa nga dugg ci biir muy laal sa ndoxo ndeyjoor di laal sa loxo càmmooy sa kanam ak sa ginnaaw soo ko witee jour bi nga koy wit dafa am looy tudd am loo fay teg boo ko wittee ba dëbb ko uh-huh. amul looy def te boo ko sangoo doom am pouvoir ñi ma ko waxoon ci élection yi gis nañ ko bu baax lool leer na waaw bii nag uh-huh. Uh-huh. dafay dox ci jigéen boo xam ne mënta am doom la boo xam ne danga koy boole ak saafara bi nga baxal ko ba mu mat bu dix ci ngoon wala dix neuf naan kaas sa naan kaas boo tëyee am doom boo sëyee am doom hmm. lii ba maa ko wax kon loolu leer na waaw mu mel ni paquet bi itam laata ñuy jóge foofu daa mel ni ñi xam nañ ko de ndax hmm. ngëneel a nga ci biir waaw boobu mooy ndoxu siti bi kon siti moom macha allah du fi taxawaalu bu tax nit di seere day am yeneen feebar tànk yi di di metti fekk hémorroïde moo ko def moo tax garab boobu lañ ciy di ko joxe mu ngoog am na laata ñu fay génn mu mel ni am loo xam ne jot nga cee def sawaar mu di élection yi nga xam ne génn nañ ci lan nga ciy wax waaw élection yi moom wax dëgg yàlla damay wax ne ñun ndam lañ ci am waaw ndam lu rëy rëy rëy la ñu ci yàlla may ndax jàmm lañ ci doon ñaan d'abord moo jiitu mooy ku nekk tiitoon nga ne élection yi sax du am. Mhm. may leen dina am waaye day jeex ci jàmm ak salaam nañ ñaan yàlla nag yàlla defal ñu tawféex. 2024 buy ñëw yàlla na dàq bii. Mhm. képp koo xamante ñëw nga taxaw pour laaj réew mi su mhm. fekkee yaa gën ci yow yàlla na la ko yàlla jox su fekkee gënoo ci yow it yàlla na nga dem te leneen ñëw mhm. te leneen lay ñëw it yàlla na indi jàmm ci barke Seydina euh, euh, am na solo ci ponk yooyu nga xam ne ci lañ nekkoon di ci yaatal di ci leeral ñiy taataan yaakaar naa di ngeen ci jërëli lii di njëriñ waaye lii di tawféex ndax suñu borom am na loo xam ne dénk na ko ko aca ni ma ko waxee saa su nekk numéro ñu ngi noon affiche suufu barre d'écran bi rek képp ko ci soxla da nga koy contacter dina jëflanteek yow ba sa xol dina sedd guyi aja euh, dama ñëw ci li nga xam ne mosuma la cee laaj mais yaa ngi ciy def loo xamante ni foog naa ñi ko mos xam nañ ko bu baax a baax a baax jaaro bi gars yi fexe leen ngeen mos jaaro bi ñëwal ci jaaro jaaro nag ñaar laa ci am dama ci am boo xam ne bii kaaraange la beneen bi ci des dafay nekk loo xam ne dafay téye alal am na ñoo xam ne luñ liggéey day tasaaroo dara du taxaw ci seen bala nga kaa liggéey di ko jox nit nag da nga koy liggéey nga takk ko ba pare lu leer ndax dañuy wax ne en chaque fois lawbe du lekk ci ndab lu baax <laughs> balaa moo joxe garab dafa war a mm-hmm. defar boppam dara ba pare mm-hmm. soo ko dem ci ñeneen lu leer nga wax jaaro bi nag kaaraange ci lay dox mm-hmm. dafay laaj nag sacrifice sacrifice nag suñ ko waxee mm. mooy loo xamante ni lu daju la lu lu dëju lu toog ni ko ni ko xale yi di waxee lu toog lu dëju loo xamante ni moom lii dañ koo dëj téye ko mm. soo ko defee boo ko takkee amul ku la mën a liggéey ndax am na ñoo xam ne mënuñoo takk téere am na ñoo xam ne mënuñoo sangu jaaro bi la ñu obligé ñu jox la ko nga takk ko te soo ko takkee da ngay gis résultat yi beneen bi ci des na koo xam ne da ngay jaay mu jafe mhm. parce que jaar yooyu ay xeet yi bari la am naa ci boo xam ne xaatim lañ bind ci kaw boobu moom jigéen du ko takk mhm. góor moo koy takk góor rek mhm. waaw pour góor la góor boo xam ne da nga soxla pouvoir wala da ngay politique wala da ngay commerce kooku lañ koy jox dafa am jour yu ñu koy tëgg am na jour yoo xam ne kenn du ko laal kooku mooy beneen jaaro bi kon nag jaaro yaa ngoog ku bëgg kaaraange da ngay ñëw ci jaaro yi ku bëgg bayre tamit mën nga ñëw ci jaaro yi waaye ku bëgg tamit falu wala folleeku mën nga ñëw ci jaaro yi kon mu garab ni muy falee noonu lay follee mm-hmm. lu leer am na ñoo xam ne buñ daggee ren léegi léegi nga jógee koo ci nguur moo xam ci jàmm wala ci ay waaye da nga fi jógee koo kon nag nañuy ñaan yàlla jàmm mm-hmm. damay wax ne ku am mystique bu bon am nga bu baax kon nañ faral di def bu baax rek waaw loolu bu baax bi en même temps tamit géntkat yeeg seetkat yi gis safaan mm-hmm. ma ne nañuy wax lu baax ku gént nit mu mu accidenté wala nga gént nit mu mu am yeneen i problème mhm, gàllankoor nga indi sarax ba mhm. mu def ko mu am tawféex kon nañu ñaan yàlla jàmm ci Sénégal ndax jàmm ji ñoo ci xaj ndax gis nga ni nga nekkee ci yi passé na moom <laughs> jàmm dafa war a ñaan ak ni nit ñi doon dañ ko war a ñaan jaboot jàmm rek kay mbokk waaw loolu moom am ah, solo te Sénégal kenn mënu ko génn déedéet ñëpp fi la ñu dëkk am na solo jërëjëf yaa Seyda kon am na solo ci jaaro yooyu kon ñëpp ñoo xam ne ku ko ci soxla rek jaaro yi ñu ngi noon fexeel nga jëflanteeg moom yaakaar na am na loo xam ne am na lu ne ci biir jaaro bi fexe leen ngeen woo ko mu am lu leen ci defal acca dama ñëw ci cangat yi nga xam ne yaa ngi koy liggéey waaye ñu bëri ñu ngi ci waxtaane ñu ñëw ci cangat yi waaw càngat moom nee naa la am naa ci xamb yoo xam ne alxuraan. waaw ndax man nee naa su ma jëmbee rek damay jëmb alxuraan waaye damay def sunguf mm-hmm. kon da ngay dégg nag gaa yu bari ñu ne la alxuraan gaawut a tàkk. may leen déedéet dañoo xamu méthode ba. Mm-hmm. alxuraan su tàkkee sax dootu fayati. sunguf ngay sangoo léegi mu def effet. Mm-hmm. nga am une semaine deux semaine mu fay. waaye sunguf bu ànd ak alxuraan. su booyee dootu tàkk bu bu bu xasee ba tàkk dootu fay. loolu am na kon. nañu neexal yaram léeg-léeg nga gis koo xam ne day wuti liggéey ba sonn du am dara. Mhm, dëgg la nag dajeeg mhm. sa sëriñ du jafe la. Mhm. waaye képp kuy ut sëriñ yàlla na la yàlla dajale. ki nga xam ne seen biddiw yi dëppoo nga xam ne su la ñaanalee léegi léegi nga gis ko. Ah. nit mën naa ñaan sax mu ñaanal nit ta du ko gis fekk te du ci moom ci yow mi ñaan loolu. dafa leer ndax gàllankoor yi nga am su dañu tee. kon kuy ñaan ki moo tax ma ne la day seet xam gàllankoor yi nit ki lan la. ñu soog koo génneloo sarax mm-hmm. doo koo defal ñaan su fekkee tamit am na ñoo xam ne laajuñu ñaan problème am ñaan mm-hmm. seet la ak sarax jeex na loolu ko defee suba mu woola ne la sama aajo bi ma fi indi woon fajun mm-hmm. am na koo xam ne nag dafa laaj sangat te sangat ba sax dina diiree mu soog a jàpp parce que gàllankoor yi nekk ci moom dafa bari moo tax sëriñ bi warta découragé waaye kii ñaan lu tamit warta découragé moom damay joxe rendez dama naan la demal nga sangu boo demee sa affaire baax na sax dama lay wax ne la continuer ba ma wax la bàyyi ah. moo tax soo ñëwee ngay fekk nit ñi ñuy ñëw di ñëwaat mm-hmm. loolu leer na mm-hmm. jërëjëf euh, yaa Sayda kon am na solo ci ponk yi nga xam ne moom lañ amoon tey pour yaatal ci waaye indi ci lii di njëriñ mm-hmm. ñiy taataan foog naa dinañ ci jële lii di njëriñ waaye lii di tawféex bu baax a baax acca comme ni ma ko waxee woon ci intro bi rek foofu mu di bi nga xam ne ñu ngi ci boo ak si ni gaynde yi ñu ngi jongante xanaa di ñaan rek di ñaan rek ba euh, lii di kub bi mën a ñëw ci biir réew mi di ñaan yàlla ndam rek man na à chaque fois li may wax la dama ne man du ma seet ci bëree seetuma ci football waxuma lu sama yoon nekkul ñaan daal laam di ñaan yàlla Sénégal yàlla na indi coupe bi ci barki Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ndax coupe bi rek moo ñor ñun gañam ñorul ñu ndax ñun am coupe dañoo ñaan yàlla na kub waaw wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla daal élection yi ni mu neexee nii mhm. yàlla na ko kub bi neexee ci Sénégal tam jig ñu nag ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu doxee ci ubbeeku ba indi fi sax coupe maa ngi tàggatoo tàggatoo boo xam ne du tàggatoo mhm. di ñaan yàlla jàmm ak tawféex réew mi yàlla sotti fi jàmm waaye kër giir yàlla sotti fi jàmm ak sutura defal ñu kaaraange ñun ñëpp képp koo xam ne mi ngi fréquenté ak ñun di fi indi sa soxla bala ngaa yegg yàlla na yàlla faj sa soxla bi sax ba doo joxe sa xaalis kon nag ñu ngi ñaan yàlla tawféex site bi yàlla nekk ay télé. amiin waaw comme ni ma ko daan ñaanee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatullah